yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadir irham jamii al waraa salaamaaleykum yéen mbokk yi nga xam ne di ngay seetaan télévision Touba Vision ñu ngi leen di nuyu euh, ñu nekk fii ci kër Sëñ Abdoul Khadir rek ci màggal bis bi nga xam ne ci la Sëñ Abdoul Khadir gane woon àdduna mu bis boo xam ne bis bu am solo la ci lislaam di am bis bu am solo ci yoonu murit ndax kii nga xam ne moo di Sëñ bis bi mu ganee àdduna Sëriñ Touba ci boppam bi nga xam ne moo doon waajuram moo ñu xamal ne euh, maam Thierno Birahim bi nga xam ne moo doon rakam ne ko am na gan gu feeñ ca ndaam ñëwal nga dem tuddi ko te nga xam ne booy dem ba bi ngay dellu si koo fi dajee ah, jégal nañu ko bis boo xam ne nag ku ci ñëw ñu jégal la jàpp naa ne bisu mat a màggal la moo tax ah, sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi teew teewaayu xaadim rasul eh, bi nga xamee ne sëriñ Cheikh eh, màggal gi mi ngi jublu si sëriñ Cheikh dafa ne taalibe yi na ngeen waajal màggal gi na ko daan waajalee bu weeru coroom bi itam dana dem ci sama kilifa lu ma wax bu ko defee ñu defee ko noonu ba mu demee sëriñ Muntaxa xamal ko ne ko màggal gi na ngeen ko def na ko daan defee ci yokk njàng ma alxuraan mi yokk njàngam xasayit mi yokk berne yi waaye nag ngeen moytandiku jaxasoog mbooloo mi waaw ndax li ko waral mooy fii jamono yu toll feebar bi nga xam ne moo xam ci adduna bi te yegg si senegal dañ wax ne lii tax mu wàllaate mooy dajaloo looloo tax mun Mountakha wax ne kon nañ mbooloo mi nañ wàññi jaxasoo gi ba ko looloo tax bu ngeen ñëwee ci kër gi tey kenn gisu fi ñu baas fi ab baas amul baas ci kër gi amul baas ci mbedd mi fi doomu Sëriñ Xaadir yi nekk yëpp baasuñu fenn ndax ku baas yaa woote léegi nag taalibe bu nag bu siyaare yi sëriñam kenn doona ko bul dem siyaare ji ko waaye boo ñëwee li ngay def mooy siyaare sab sëriñ te dellu ci say sa kër yeggalee fa magal gi te boo ñëwee itam yi nga xam ne moom la docteur yi nga xam ne ñoom seen xam-xam màcc ci wàllu euh, santé lañ wax na nga muy takk sa muy muy raxasu muy diwoo sel yooyu yëpp am na ñu taxaw ci bunt yi di ko def bala nga bu ko defee àgg siyaare boo siyaaree itam nag nga dellu sa kër yeggale fa màggal gi moo tax tey noonu lañ koy màggalee ñu ngeen gis ni berne yi nii ñu di ko def ah, sëriñ Seydou Niang di taalibe bu mag ci kër gi ah, de berne yi mu indi moom ngeen fekk nii ñuy recevoir ah, ñee jàngal xuraan ñaa ngi jàngal xuraan ñee jàngi xasee ña ngi koy jàng ñuy def ay salaatu ala nabi ña ngi koy def waaye nag mbooloo mi dajoo lawuñ ay benn benn rek moom nga gis ci kër gi ndax kër gi waxtu wi daana fekk mu fees tell waaye tey ci loolu lañu nekk sëriñ Abdul Xaadir nag ku koy màggal yaa ngi koy màggal tax si moom sunnati màggalam lépp da nga teg ci sunna ndax moom mi ngi tënkoon ay mbiram yëpp ci sunna di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba dañ daan wax ne eh, sunna eh, bu doon bu doon loo xam ne aw nag la jàpp naa ko ko rey danga nga fay sëñ Abdou Khadir ndax moom mbiram yëpp sunna la ko teg looloo tax eh, boo boo mosaa jokk ci moom li mu lay digal mooy na ngay góorgóorlu ci jaamu yàlla góorgóorlu ci liggéey tam mooy tandu ak tooñ loolee nag mooy li nga xam ne ci la taalibe yi nekk di ci dund tey di ko màggal di ko fàttali ko nga xam ne yow bu ñuy fàttali ko Seydou Khadir li nga fi war a jëlee mooy kan mooy Sëñ Abdou Khadir ak lan la daan def jàpp naa Sëñ Abdou boo koy fàttaliku fu waxtu jotee balaa jot da nga jàpp fu waxtu jotee nga julli te jullee ko ci jàkka ndax moom mus sa jullee wenn waxtu lu ci jàkka te jàkka ñu ne itam moo fa daan jiite dëkkam bu mu mos a sanc lam fay njëkk defar mooy jàkka maanaam jàkka dong la daan tabax ci xaalisu boppam laay lu dul jàkka loo gi te du jàkka nit doo ko fi def waaye du du moom moom alalam yëpp jàkka dëkk boo dem itam am na jàkka Ah, dëkk bu mu dem itam bu fa jàkk amee ci jàkk jëlee jullee ji loolu moo doon seebu xaadir kon bi ngay fàttaliku yow la nga war a jëlee ci eh, fàttaliku gi mooy mooy nga fonk julli fonk joomu yàlla mooy tund tooñ te nangoo liggéey ndax loolu lay jëriñ waaye ñëw sol su mbubb rek taxawaal ba ngoon nga jot nga ñibbi loolu te jëlee woo fi dara loolu taxul ñuy woote kon ñu ngi nuy bokk yëpp di soññu ci eh, njàng alxuraan di soññu soññ ci njàng xaseet di leen ci berne waaye nag di leen ñu moytandiku jaxasoo gi kon nga xam ne ku ñëw boo siyaaree barab nga dem delluwaat ci yitte yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yaa malikal mulki yaa man jalla al xawadin irham jami al wara yaa haadi al rada الملك يا من جل أن خاد ارحم جميع الورى